faslum li ab dog la fii dikkri wirdihi ci tudd wirdam wa allazi wi nga xam ne aataahu jox na ko ko allahu yàlla tabaraka wa taala bi waasitati rasulihi ci diggaleg yonanteem ba weti jaaree ko ci yonante bi alayhi salaatu wasalaam woo maag la nga xam ne yata àllaqu dana aju bi daalika ci day wax nag ci dog bi wirdu maaxoos bi nga xam ne yàllaa ko jox sëriñ bu mu wérdu boppam moom lay wax ci doogum ñaareel bi wa fi sanati ca at ma ak taaniyat may aji ñaareel baada ashirina ci gannaaw ñaar fukk wa salaasi mi atin ak ñetti téeméer wa alfin ak junni min hijratihi ci gàddaayam nga sallallahu alayhi wa alihi wa jox na ko allahu yàlla tabaraka wa taala al wirda wirdu asharifa way aji tedd almubaraka wadi wuñ barkeel bi waasitati rasulihi sallallahu alayhi wa fa aataahu te mu jox ko li muridihi ñeel ay taalibeem wa raxabahum te mu xemem loo leen ci moom wakaana te nekkoon na xaqiqan di aj yeyoo bi daalika ci loolee waqaal te mu wax lahum ñeel leen inna man naka nga xam ne waa zaba saxoona alayhi ci moom maha shurutihi ànd ak ay sartam yadduxul dana tàbbi aljanata ajjana bila xisaabintul isaab wala iqaabintu caageenu bugal wayam naaw xoote dina ko fekk allahu yàlla minal makaarihi ci mboolem yee sib fi duniyaa ci àdduna wal axirati ak alaxira wala yaqrabuhu te du ko jege al cheytaanu seytaane al mariidu say aji fettéerlu wa yakk fi dana doy haadal wirda wi ne wird min asharafi ci tedd nga ni àndahoo naka moom laa yuxu nii du doyluloo an walis ko wirdu benn wird wa yuxu an kulli wirdin walis wépp mu ne bi bi nekkee foofee ca gànnaar ci gànnaar boobu ñibbisee ci atum baksas ci gàddaay gi du sareeg 1904 ci atum tubaab ci weeru koor wa ci la ko yonante bi feeñu ci njëmmeer ci jàkkaarloo jox ko wirdu maaxoos bi nga xam ne ma nga bàyyi ko ci yàlla borom bi sëñ bi daal di koy jox taalibe yi nag sawar leen ci wax leen itam lu tax ñu war koo fonk loolu te góorgóorlu ci mu ne leen ku sàmmoonte wërdu wi sàmmoonte ki sartam booy faatu rekk daldi dem àjjana kenn du la xisaab kenn du la def lu nuru xeetu mbugal te lépp lu ñuy bañ mooy lépp lu ñu taamuwul rekk ci àdduna ak alaaxira yàlla dala ci musal te seytaane mu fittéer li mu nga xam ne yàq rek moo ko tax a jóg du la jege moom mi taalif nag mu ne lenn rekk doy na ndam ci wirdu yi mooy boo ko yoree jarul nga yore weneen te nag weneen woo yor te yoroo ko it du tey rekk nga war a jël yi boole ja boo ko yoree daal yor nga lépp waaye leneen loo yor te yoroo ko nag ci xeet yor di ba tey am na loo manqué le woo xam ne jël wi rek mooy tax nga matale ko wa qaala wax na lanaa ñeel nu cheikhunaa sunu sëriñ wa wasilatunaa tey sunu jot li kuwaay ilaa rabbinaa jëm ci sunu borom taxaala xiina aataana ci waxtoom li joxe haadal wirda wi la wird ne aataytukum jox naa leen haadal wirda li wajhi llaahi taxaala al karim faxuduuhu jàpp leen ko li wajhillaahi taala al karim bu ma xaal topp mu ne xuduuhu jàpp leen ko bi quwwatin ànd ak farlu ànd ak kàttan waaye ma ànd farlu rek wa man ku nekk woon min kum ci yéen indahu fa moom wirdun wenn wird qablahu ci ak jëkkam wa qadarate mu àttan xalaa jam yi ci ak boole ma xaw ànd ak moom faxu kon moom nuurun leer la xalaa nuurin ci kaw leer wa in lam yaqdir ndem àttanut ci boole yaar yi iqtasara mu yem rek mu gàttal li mooy mu yem ala hada wirdi ci wiri wirdi ak sharif yi aji tedd mu ne suñ tuubaa suñu sëriñ ki dox suñ digganteeg suñ boroom bam nu jox wirdi wi dana wax ne nu wirdi wi day jox naa leen ko ngir jëmm yàlla kon nag jàpp leen ko bu baax ngir jëmm yàlla te farlu ci bu baax bu fekkoon nga yore wird te nga mën koo booleek wii kon boole ko ndax leer ci kaw leer la boole yaari leer lay doon koo xam ne nag yore woon wenn mbaa mënoo koo boolee wa nga yoroon kon yemal ci wii rekk